xëpp dem tuur borom GPS Ngagne Demba Touré fi ñu jëm dafa sore étape yi ñu des dafa bare mais fii mënuñu fi woon bañ a taxaw te Aïda Mbodj mi ngi leen di nuyu moo nekk noonu président mi ngi leen di nuyu président Bakar Camara mi ngi leen di nuyu président Focus Maïmouna Bousso mi ngi leen di nuyu kon sans plus tarder dañuy jox wax bu paree ñu jox Baye Niass bu paree ñu jox Mbappé après le président Ousmane Sonko soogaan di jël bu ko defee ñu mën enchaîner parce que am na programme bu si asalaamaaleykum sama kër ba ñu jógee Djilor ba nëgëni dama jóg taxaw ndax ba nga ni jóge nañ Djilor jaar ba jaagaan barka ci ñëw fii ci Passy buur joñiñ mii keroog bi may def li leer Bambey Ousmane Sonko dafa toog nijaayam la kon waa Passy yéena moom candidat bi cent quatre-vingt-dix pour cent merci beaucoup madame la présidente kon mu enchaîner prise ak DG Baye nga xam ni yàlla def na ci même bi ñuy nekk opposition nekk na ci raar yi nga xam ni ñoom ñoo gagné mairie ci zone bi ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax encore une mbokki Pass yi asalaamaaleykum. mbokki Pass ma dara de. dama bëgg ngeen wax Sonko jërëjëf ba mu yëg jërëjëf Sonko jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu nuyoo remercier la délégation caravane bi nga xamante ne le président Ousmane Sonko moo ko jiite ñu ngi nuyu les coordonnateurs communaux yi nga xamante ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte ci département bi ñëw ànd si ak ñun mais aussi les mouvements de soutien yi nekk mais sans oublier les alliés ñi nga xamante ne tey heureusement ils ont leur leur président de parti ici présent nous avons Déthié Fall qui est là représenté par Babacar Tall nous avons aussi Maman Aïda Mbodj représenté par Bour Sine Papa Makumba Mbodj nous avons également Tonton Malick représenté par Ndeye Bita nous avons Nene Diallo par Tata Mimi Touré Omar Diao par Baba par aussi Cheikh Sall représenté Alioune Sarr donc tey ñuy nuyu les députés investis mais aussi di nuyu képp koo xamante ne bàyyi na léppam ñëw ànd ak ñun rawatina les maires yi nga xamante ne dañoo décidé à la dernière minute bàyyi lépp lu ñu yoroon ne tey dañuy ñëw jàppale ci département bi pour ñu gagné ko ku nekk xamoon na ne département de Foundiougne au-delà de liggéey bu am solo bi nga xamante ne moom la coordination bi liggéey jiite ko muy Pape Ali Badji dafa am loo xamante ne réalité la ay maire yoo xamante ne dañoo décider à la dernière mu ànd ak ñun ñu mun ci lim le maire également de euh, Sidi Kanté de Kër Saloum Diané jox na ma avalam na dañu jàppale le maire Mamadou de Nioro ak Santal d'accord na bu jàppale ñu le maire Pape Ibrahima Diop de Karang ñëw na bu jàppale ñu mu ngi toog suñu kanam ñu demoon la Ngor John de Mbam, nous avons Babou Tchaham, maire de Soum, nous avons également Badara Diom, maire de Girnda, et aussi Ibrahim Ndong. Sans oublier ñi nga xamante élection yi passé locales yi ñoo jëloon deuxième seen dëkk ñu mën ci lim ku mel ni Mayakor Diouf ku mel ni également Lamine Ndiaye ku mel ni Omar Cissé dañoo Assane Tall mais Souleymane Niass également au niveau de Diossong sans oublier également Massour Niang di leen wax ne ñoo ñëpp tey président bàyyi nañ li ñu nekkoon yëpp gëm nañ ne dëgg ji fi la nekk ñëw nañ ànd ak ñun donc ñu leen di wax soyez les bienvenus ma ne on avait à une différence de 35 pour cent c'est 35 000 lañ amoon ñoom ñu am 36 000 tey parce que moom kon mu ngi noonu ñu def daal di ñu daal di def pause kon nodd bi daal uh, jeex kon uh, loole tax ñu daldi di arrêté li nga bi comme ngeen ko xamee kon ñu dox bi itam uh, ci la daal teewlu rek une minute wala la li nga xam te moo di liggéey bi comme ni ngeen koo xamee kon ñu ngi fii nga xam te ni moo di ci comme ko constaté itam sur les images euh, bokk na si mbooloo yi gën a ci li ñu teeru bi ñu dooree li nga xam te ne moom di caravane tey bi ba léegi di leen fàttali ne ñu ngi euh, def fi nga xam te ne moom di ci Fatick euh, ginnaaw bi ñu jaaree fële ca Tataguine ak euh, dëkk ba yee ca topp voilà kon ñu daal di woyoon li nga xamante ne moom moo di. kon ñu enchaîner prise de parole yi ak candidat bi nga xam ni xam ngeen ko muy Ansoumana bu ko defee mu wax waaw mais na gaaw na gaaw na nga. non juste pour dire que li ñu ñàkkoon ci élection yi passé am nañ ko benn mooy parce que gii nga xam ne moo nga ñëw président bokk na ci communes yi ñàkk a jël nangul président Ousmane Sonko. ténor ba léegi alors pourquoi pas cette fois ñu gagné ko mais je vais une fois cette fois-ci à 80 kon donc ñu joxe la parole pour mu dagg gërëm ñëpp jërëjëf asalaamaaleykum mbokku Passy euh, le président Ousmane Sonko département Foundiougne neuf candidats la fi investir neuf ma ne am na département bu am neuf candidats ci législative yi man mi Ansoumana Sarr maay tête de liste département Foundiougne dëkk Dionewar Mariama Koli mooy sama binôme dëkk Passy suñu suppléant Boubacar Sarr dëkk Toubacouta beneen suppléante bi Kouram Bissane Touré dëkk Sokone si liste nationale bi Pape Ali Badji le coordonnateur départemental de Pastef Foundiougne mu ngi fa si liste nationale bi tamit Aminata Kase mu ngi fa mais boo demee Europe ki ñu naan Fodé Mané dëkk Toubacouta plus exactement Bettenty mu ngi fa boo demee commune Nioro Alassane Tall Yaba Cissé mu ngi fa donc le président Ousmane Sonko je panse que le département Foundiougne si investiture yi am nañu cër bu mag neuf candidats investis quatre comme titulaire cinq comme suppléant ñu ngi ñaan département Foundiougne comme ni ko gars yi waxee bu ñuy démarrer avec le PASTEF dans le département Foundiougne de Foundiougne on avait trois cent voix deuxième élection ñu am sept mille voix élection ñu am 35 000 voix ñu rawee ñu 500 voix. élection deux élection 17 novembre 2024 ñu ngi ñaan ñu battre Foundiougne à 90 pour cent mun naa nekk mun naa nekk non dama leen di wax non déglu leen département Foundiougne dañ ko ñàkkoon ci élection présidentielle dañ ko ñàkkoon donc limal laa leen remontada bi 700 voix 7000 voix 35000 voix bii di ñëw nañu am 60000 voix maa ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam. jërëjëf kon ñu jox kàddu gi ki nga xam ni fii la bokk ñëpp xam ko aussi ci Sénégal muy Mbappé la koy gars yi di tuddee muy Ngagne Demba Touré. président Déthié Fall li tax ma jàpp ne étape bi war naa def prise de parole mooy man parce souvent dañ may tooñee nag ne boy town la waaye loolu c'est problématique te référentiel 2050 bi xam ne moom le président de la république liggéey ak premier ministre am Ousmane Sonko loolu la bëgg a jeexal Sénégal mooy dëkk yi li fi nekk ci potentiel suuf yi li mu nanguwee nit ñi mën a bàyyi seen dëkk ñëw def exode rural ba tey man ma juddoo dakaar sama papa daw ay kilomètres pour ñëw dakaar pour jaay si est-ce que xale yi Saloum d'accord ngeen ñu continuer ci système boo xam ni chaque année des milliers de jeunes quittent Saloum dem di jaay Dakar loolu nag bu ñu wax mooy équité territoriale mooy programme bi nga xam ne moom la ñu jaay sénégalais yi te bëgg nag mettre ko en œuvre li muy miser mooy képp kuy sénégalais foo mun di nekk sur le territoire national nga am même te ak beneen sénégalais bu nekk biir Dakar ma leen di laaj yéen jeunes yi nekk fii est-ce que yéen a ngi jàng dans de bonnes conditions est-ce que am ngeen formation. est-ce que am ngeen xëy ce que am ngeen ndox yu baax est-ce que tous les villages sont électrifiés est-ce que assainissement urbain bu jaar yoon am na est-ce que ay usines am na est-ce que li ñuy bay fii ci Saloum ñu ngi koy transformer loolu nag su ngeen bëggee ñu mettre ko en œuvre lenn rek mooy levier bi lenn rek mooy moyen pour accéder ci mooy au soir du 17 novembre 2024 ngeen jox le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et la tête de liste Ousmane Sonko une victoire à hauteur de 90 pour cent ma daaneel ci ne loolu li koy def ñaar la élection ay xob mooy voté est-ce que jeunes yi fi nekk yëpp jot nañ seen carte électeur je profite de cette tribune pour lancer un message à tous les jeunes du Sénégal. Allez retirer vos cartes d'électeurs dans toutes les sous-préfectures et dans toutes les circonscriptions administratives. bu loolu jeexee mooy toutes les JPS bu leen yem ci caravane yi kase créé nañ benn comité pour coordonner les visites proximité li ñu bëgg mooy bu leen bàyyi benn village bu leen bàyyi benn concession bu leen bàyyi benn quartier bu leen bàyyi benn kër képp kuy sénégalais fekk leen ko ngeen won ko bulletin bii nga xam ne gars yi moom lañ ragaloon fotom fotom sax dañ ko ragal fexe leen ñu gis bulletin bi au soir du 17 novembre 2024 ñu tàggali ko gars yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon ki waral daje bi waral taxaw bi laaj bi boobu tey parce que bi ngeen génnee yëg nañ ko yàgg na ki waral daje boobu yegg si na mooy ki nga xam ni moo war exécuter programme projet bi nga xam ni moom la ñu déroulé sikat moo war exécuter li nga xam ni moom ngeen teg ci loxo le président Bassirou Diomaye Faye ki nga xam ni moo war exécuter la bonne gouvernance l'engagement africain l'aménagement du territoire et le développement durable moo war exécuter le capital humain et l'équité sociale moo war yóbbu Sénégal sur une économie compétitive en Afrique et dans le monde kooku mooy kan kooku mooy kan kooku mooy kan Ronaay Baay Mboote Ronaay Baay mamma ina magado yo Ousmane Sonko nga xamante ne waxal askan waxal la population de Passy asalaamaaleykum mbokk Passy ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu wax mbégte am nag ci bi. mbégte bi fu ngeen ko natt weesu na ko. ndax umut bañ fi gëjee léegi mooy suñu premier nemmeeku tour bi.